tey nag maa woote woon fii ngir ñu daje waxtaan santante ndax ay nit bu ñu seqee jàmm am lu ñu bokk dem ci ba mu jàll dafay rafet ñu daje waxtaan am ay jàngat ca la ñu nekkoon xool lan moo ci ay rëq-rëq xool lan moo ci aw yoon xool lan lañ ci war a jubanti xool naka lañu war a taxawaate waaye surtout renouveler suñu engagement ci wetu président la république kon loolu moo bon daje bi ñu demoon ci élection nag di sant yàlla ci tàbbi gi ñu ci tàbbi ci jàmm génn ci jàmm te loolu nekk premier enseignement bi mu élection yoo xam ne lépp jaar na ci yoon nekk élection yoo xam ne am na organisation boo xam ne organisation bu mucc ayib la nekk élection yoo xam ne lépp ci jàmm lañu ko def amul xuloo amul xeex amul lenn loo xamante ne bi lu ñuy ñaawlu la ci fànn googu kon day mel ne ci biir élection yooyu ñu génn démocratie sénégalaise moo gagné ndax moo wane waat boppam moo wane ne démocratie bu taxaw la démocratie bu dëgër la administration sénégalaise aussi moo ci am ndam ndax day waree ne organisation yu jaar ci yoon foog naa léegi loolu moom lu ñu tàmm lu ñu miin la ba nekkatu sax loo xamante ne bii lu kii man lay nekk ci ñun. beneen enseignement bi ñu ci tiré mooy majorité bi nga xamante ne bii benn bokk yaakaar ab dog ndax cool yi bari woon na jafe woon na metti woon na adversité bi aussi metti na waaye nag bañ leen ba ci pandaw ga ñëpp gis nañ ne am nañ majorité loolu aussi dañ ciy sant yàlla di wane ne aussi effort yi nga xam ne ñu ngi ko doon def. ak xeex bi nga xam ne ñu ngi doon xeex ci teenaay bi suñu borom nee na lu ko ba li ngi doon wut may ñu ko loolu suñu ci félicité le président de la république di ci félicité mboolem responsable benn bokk yaakaar yëpp. troisième enseignement bi ndax dama bëgg rek indi trois enseignements yooyu après ñu dugg ci question rapidement moo di gis nañu ne à Touba nit ñi liggéey na liggéey bu rëy la ko dalee ko teddali si ba ba ci gën tuuti ak alliés yi. ak jigéen ñi ak ndaw ñi kenn noppaluwut kenn ku nekk def nga ci loo mën ak loo mënut bari na ñoo xam ne jóge nañ feneen dikk sax jàppale ju kon day mel ne fii ci Touba ci li ma gis man ren li ñu sonn ci élection yi mosuñ ko sonn ci benn élection kon loolu aussi maa ngi leen ci sargal di leen ci féliciter di leen sant di leen ci gërëm di leen xamal ne taxawaay bi ngeen waroon taxaw moom ngeen taxaw te loolu mooy li ñu xaar ci yéen yàlla nag def na amuñu ndam ndax ndam si ci loxol sunu borom la nekk moo ko jox ku ko neex kon ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo gañee ñu ngi leen sargal di leen félicité li am solo rek moo di ne tey ci li ma gis mooy ñu perdre dans la dignité xam ne li ëpp solo ci li ñu war a def mooy jógaat takkuwaat ngir ëllëg sunu borom jox ñu ndam ndax noonu rek lañ mën a gañee kon foofu mooy fi nga xam ne fi laa leen di invité kenn ku nekk ci yéen def jàngat ci li xool lan moo dox jubbantiku waaye nag surtout mu taxawaat takkuwaat garder sa dignité xam ne ëllëg bu soobee yàlla nii ñu def bu ñu ko bàyyiwut ndam dina dikk incha allahu rabbi kon day mel ni ñetti enseignement yooyu rek moom lañ ci tiré bonne organisation des élections victoire de benn Bokk Yaakaar et que Touba aussi am nañu fi défaite kon nañu waat taxaw ngir bu ëllëgee ñu mën a gagné élection yi. li ci suñu wàll bokk suñu borom dogal na ñun jàll nañu loolu dañ ci sant yàlla da ko ci gërëm ndax suñu borom moom mooy def lu ko neex kenn ku nekk ñun sa destin yàlla nopp na ci. Mhm. sa destin yàlla noppi na ci kon bu fekkee jàll nañu aussi loolu dañ ci sant yàlla. mais engagement bi ñu jël fii ci seen kanam yéen ñëpp ak ci kanam dëkk bi yëpp moo di ne fas nañ fa yéene représenter dignement le peuple sénégalais fas nañ fa yéene représenter dignement Touba ak le département de Mbacké ndax departement bi dafa am loo xam ne moom la mérité moo tax bu ñu fa demee bu soobee yàlla danañ am taxawaay boo xam ne Sénégal gépp danañ xam ne taxawaay bii musu fee am danañ fa taxawal jigéen ñi. taxawal fa ndaw ñi taxawal fa mag ñi taxawal fa toute la société et benn question boo xamante ne bii question bu am solo la boo xam war nañ ci débattre bu soobee yàlla lépp lu suñ taxawaay dañ ko def ba mat sëkk te loolu moom mi ngi suñu kanam bu soobee yàlla. defoon naa fi émission jëloon naa ay engagement sur un certain nombre de questions bu soobee yàlla loolu danañ ci dellusiwaat incha allahu rabbi kon maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm waaye ñun ñëpp rek nañu maase eh, sant yàlla ci dugg ñu dugg ci élection yi ak jàmm génn ci. ci jàmm ba toog fii di ko nettaliwaat kon Bamba dañuy dem directement ci ci question yi ndax day mel ne jot gi amul te on a perdu un peu de temps voilà ñëpp amoon yaakaar ñun ñëpp commencé ci man mii nag ak ñi fi toog ñëpp aussi jàppoon nañ ne dañuy gagné parce que liggéey bi rafetoon na organisé woon na tege na ci yoon nit ñi àndoon nañu mais au finish malheureusement ça n'a pas marché et li ma li ma li ma jàpp ne bokk na ci li nga xam ne moo ñu ñàkkloo fii mooy mooy boo dee xool on a perdu toutes les grandes villes ci biir réew mi muy Dakar muy Thiès muy Kaolack muy Louga muy Saint-Louis on a perdu toutes les grandes villes kon day mel ne au niveau national la amee. on a perdu la ville de Louga mais on a gagné le département on a perdu la ville de Mbour mais euh, on a gagné le département on a perdu la ville de Kaolack mais on a gagné le département je a pratiquement perdu toutes les grandes booy ñàkk nag grande ville ci réew mi jàpp naa ne grande ville ba nga xam ne mosu koo gañe boobu munta euh, munta rëcc loolu mooy bi nga xam ne mooy euh, mooy bi ci jëkk beneen bi aussi daanaa ko wax dinaa ko waxati bi ñu ne Abdoulaye Wade tête de liste la wax naa koy di ñu ma jege ñu ngi may dégg nee leen ah photo Abdoulaye Wade man ñëwuma ko ci bulletin bu ñu sànni à Touba mm-hmm. ça nous a fait très mal c'est ça la vérité aussi faut le reconnaître fii c'est un fief de Wade donc ñun on a toujours été minoritaire et on reste minoritaire donc dañuy xeex ngir dellu siwaat ba ci wax na ko on a fait des pas aujourd'hui on est à 36 mille voix du kon ñu ngi seq ay jéego mais photo boobu ak ñëw gi mu ñëw ci dëkk bi ci réew mi à deux jours de élections wax nit ñi dégg ko loolu si jàpp naan bokk na ci li nga xam ne moom bouleversé affaire bi ak 48 heures de élections ci sama xam-xam bu bu gàtt la des nag mooy leen wax rek ñu xam ne Abdoulaye Wade moomu wut na réew waaye bu ko yàlla dogal da koo gagné kon yéen bu leen découragé benn yoon benn yoon bu leen bu leen mës a découragé ay ndaw ngeen ay xale ngeen yéen ci aw yoon yéen a ngi liggéey yéen ngi def ngeen war a def bu soobee yàlla dana dikk incha allahu rabbi amu gi sax lu may nattable je pense qu'il faut savoir perdre dans la dignité on a perdu il faut se relever taxawaat c'est ça la vérité mais foog naa ne yenn yenn spéculation yi jëru ko perdre dans la dignité quand mooy jox nit ki grandeur meeting on l'a jamais fait à Kër Sëñ Touba ça c'est defuñ fa woon meeting ay lijaasa lañu fa doon joxe kër ga wax naa sama diggante ak moom ñoo ko doon fi ñëpp lañ doon yàq waaye ba ma keroog ba ma ci waxee umul xuraan laa ci waxee ba benn baat ndax xam nañ bu ñu ko noonu ko naata am leen loo mën a wax kon boo gisee nit ki mu tranquille noppi danga koy bàyyi noonu mu mel waaye nag volcan bu nelaw bul ko yee loolu mooy li wax fii moom dëkk fi ñu dëkk suñu sàkket moo dëppaloo kenn ku ne xam nañ fi nga taxaw Sëñ Tuubaa ku ne xam nañ li nga mënal Sëñ Tuubaa ku ne xam nañ fi nga féete Sëñ Tuubaa xam plan là man awma ci benn complexe et absolument rien à envier à personne c'est ça la vérité li li li nga xam nag mooy li nekk moo di deux poids deux mesures bi ñu bëggee di ci dëkk bi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg mooy lan ku mu neex ko ne ànd ak opposition bi yaa fi man yaa fi gën yaa fi raw waaye nag bu fekkee ne da nga sant Mbàkke ba nga sant leneen boo ànd ak boo ànd ak pouvoir bi ñu ne déedéet amul droit ànd ak moom daa war a bàyyi politique mais loolu ñu mën ko def wala mu bon ñëpp bàyyi muy sëriñ muy taalibe c'est ça la vérité mm-hmm. bu bonee ñun ñëpp ñoo ko war a mas a bàyyi parce que nekkul lu baax waaye waaye moom bi ba am droit def ko yow nga am droit def kenn ku ne am droit def te ñun li ñuy def li ñuy te bu soobee yàlla ñu ngi ci seq ay jéego te loolu ci kanam dina gën a leer dinañ xam ne nañ am taxawaay boo xamante ne bi taxawal ko dëkk bi taxawal ko réew mi ba te jàpp naa ne keneen fa nekkul ku dul ñun góob ma ne danga mën a taxaw taxawaay benn noonu kon kay li ñaan yàlla moo di suñu borom di ñu kattanal ba yéen ñi nga xam ne am nañ ko ñu man ko àggale bu soobee yàlla. am naa benn programme bu ma tëral maa ngi ko tudde pencum gox bi retenez bien le nom gox bi laa ko tudde bu ñu jéggee bu ñu génnee ci lii ba magal gi jàll dinaa def ay fora dans tous les quartiers waxtaan ak nit ñi recueillir seen doléance ci loolu bu soobee yàlla ci la fas yéene liggéey et que loolu dinaa ko séq ak mbooleem képp koo xamante ne bi yaa ngi ci biir quartier yi rafetina quartier yi nga xam ne rawatina quartier yi am na ay jafe-jafe am na ay problème du yam nag ci Touba gi donc parce que c'est tout le département de de loolu danañ ci liggéey bu ñu liggéey ci loolu pare on en fera un programme listé ko ministère par ministère képp ku fa dikk lépp loo xam ne concerné na Touba jàpp ne lii Touba war na ci yëngatu bu soobee yàlla lañ ca war a wax danañ tax wax ndax booy liggéey dangay liggéey ci ci programme loolu bu soobee yàlla beneen bi moo dee aussi am na yeneen question les questions de société boo dee xool day mel ni assemblée dafa xaw a sori nit ñi dafa xaw a sori société bi Euh, loolu nag jàpp naa ne waxoon naa ko également ci campagne bi war nañu war nañu indi ay passerelle entre l' assemblée nationale et la société sénégalaise ba mu gën ko jege ba nit gis seen bopp ci assemblée bi loolu si jàpp naa ne am na ci loo xam ne man mën naa ko te bu soob yàlla aussi dina ca fas nañ jëre liggéey ça c' est des questions de de société parce que tey réew mu toll na foo xam ne am na question yoo xam ne mënuñ ko occulter il faut ñu toog wax ci trouver ci un consensus Sénégal lan lañ ci xalaat lan lañ ci bëgg ban jublu lañ ci am ñu bañ ko ragal parce que bu ñu ko ragal def ñuy gaañ wala ay nit dañ koy jël manipuler question yooyu def ci yoo xamante ne bi ne nak sul noonu lay doon kon jàpp naa ne aussi loolu bu soobee yàlla dinañ ci danañ ci dellusiwaat dinañ am temps waxtaan ci mel noonu bu soobee yàlla. li am solo moo di ne egg man daal ak ñoom parce que ñu ñëpp ñoo bokk ak jublu ñoo bokk bëgg-bëgg li ñu yitteel rek mooy c'est le département de de Mbacké mu am une bonne représentation. les question yi nga xamante ni également mooy euh, mooy yi nga xam ne mooy euh, moo intéressé nit ñi ñu ko en charge au niveau de l'Assemblée nationale kon mun na ñàkk ñun ñu am lu ñu suñu biir di ko waxtaane foog naa di ci bokk ay positions yoo xam ne ñoo ko jël que soit Cheikh Abdou Mbacké wala Abdou Mbacké Ndaw wala ñeneen ñëpp maa ngi leen félicité encore une ma koy euh, ma koy ma ngi leen fàttali ne keroog bi ñu joxe sa département Mbacké rek immédiatement man ci laa leen félicité boobu sax xaaruma affaire yi Dakar di wax donc foog naa ne am na jonction boo xam ne man na am ci suñu diggante pour l' intérêt du département de Mbacké et y a des questions qu'on peut défendre ensemble mais nga xam ne mooy la am solo mooy kenn ku nekk da nga bokk ci groupe parlementaire di défendre également ses intérêts fa nga bokk mais am na yoo xamante ne bi man na ci am consensus parce que yooyu c'est des questions yoo xam ne ñun ñëpp lu yitteel su boobaa luñ ci war a wax danañ wax daal te loolu man démarche bañ ci war a def pour que ñu bokk too waxtaan incha allah danaa ko def xam naa leen ñoom ñëpp ay nit la ñoo xam ne dëkk bi ñor na leen département bi itteel na leen département bi ñor na kon bokk toog waxtaan ci yenn question d'intérêt yi comme mënta mënta ñàkk te bu ñu ko defee rek loolu lépp également njëriñ la ñu et di espérer aussi ñu am un septième donc représentant comme ni nga ko waxee muy également Matar Diop jàpp naan dana jàll